bi nga xam ne le président Ousmane Sonko tànn na la région de Thiès pour y débuter sa campagne électorale. ben euh, kontaan rek on s'en réjouit Thiès est une ville historique de patriotes boo xoolee ci suñuy maam ba tey donc euh, c'est un choix naturel pour que la campagne euh, déroule wu fii à Thiès et Thiès a été très déterminante aussi dans la bataille pour. Euh, jot le pouvoir di ñaan ñëpp voter massivement pour donner les outils et les instruments de gouvernance au président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre le président Ousmane Sonko. Femme, qu'est-ce qui vous motive à euh, la personne de Ousmane Sonko? En réalité, en tant que femme, euh, ce qui nous motive à être derrière le PASTEF, c'est notre patriotisme. Parce qu'on a toujours cru. Et on croit au Sénégal. Des Sénégal, on a les moyens, on a les ressources humaines. pour se développer et c'est ce à quoi nous invite le président Ousmane Sonko. Et c'est tout naturellement qu'on a sacrifié nos carrières, nos vies personnelles pour être derrière lui. Et aujourd'hui qu'on les a menés au pouvoir, il faut que nous leen aussi pour que mën a gouverner en toute stabilité, en toute confiance. Moo tax encore une fois ñu renouveler suñu appel à tous les Sénégalais euh, au-delà des 54 pour cent qui avons qui avaient porté président Diomaye Faye au pouvoir au-delà de des 54 pour cent appeler tous les Sénégalais à donner les instruments et les outils de gouvernance euh, au pour mener le Sénégal vers le développement bi ko souhaité ñu jaajëfal ko bu baax a baax donc euh, comme vous pouvez le voir les dames ne sont pas à reste euh, euh, tàmm nañ di gis li nga xam ne moo nekk les hommes uniquement dans la langue politique monsieur ñu ngi lay nuyu. di xam ban yëg-yëg bëgg a xam ban yëg-yëg rek am bi nga xamee ne le président Ousmane Sonko du parti Pastef daan lay tànn la région de Thiès comme première ville bi nga xam ne tey jii moom lay dooree sa campagne électorale. waaw ma présenté wu d' abord Abdou Sagne laa tudd représenté le MONAF le mouvement national des patriotes handicapés. Euh, nekk aussi un investi dans la liste nekk la liste suppléante à la treizième place comme ni nga ko waxee nag rafetlu rek Thiès ndax Thiès moom c'est une ville politique Thiès moom euh, amul lenn luy xew ci dëkk bi te Thiès des ginnaaw kon buñ ko tànnee bokk ci fi nga xam ne fi lañ bokk na ci dëkk yi ñu njëkk a ñëw loolu dañ ciy kontaan dañ ciy bég te di wax ni waa Thiès symbole la mais au-delà du symbole dañ ko war a jéem a mériter ndax un symbole moom nit ki da koy mériter placer ko fi nga xam ne fa la war a nekk en tant que personne handicap est-ce que auparavant avec les autres hommes politiques euh, dire les présidents yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi jot a jaar tey jii est-ce que du ci lii ngeen gën a centrer seen bopp wala avant euh, ban changement la am euh, ci vis-à-vis ak euh, vie politique bi. waaw soxna si parti Pastef dafa def lu am solo loo xam ne comme ni nga ko waxee dañ koo mës a gis ci histoire ndax parti Pastef ngay gis ngay fekk un programme. bu dëgër boo xamante ne ni programme bu ambitieux la bu jëm ci handicap loolu ku ko liir ku liir la programme Diomaye président da nga koy gis ku dem ca bureau politique ba danga nga fay gis ay pas ay ay ñu nekk fa liste Pastef bii nga xam ne moom lañ présenté nga xam ne mooy liste député bi national comme départemental comme suppléante am na six personnes handicapées yoo xam ne ñoom lañ ci dugal pour que ñu dem représenté wu assemblée nationale handicapé nga xam ne ca jamono li ñu xamoon mooy fàtte leen li ñu xamoon mooy di leen euh, euh, jox li ñu xamoon mooy di leen jox yenn yi li ñu xamoon mooy féetale leen ci yenn couche yi féetale leen ci yenn xalaat yi duñ leen bàyyi xel ci dara parti mel ni Pastef ak son leader Ousmane Sonko ñëw euh, seppi loolu ma ñëw pour rétablir vérité boobu réparer injustice boobu loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dund moo tax ñuy woo handicapé ak seeni famille ak képp koo xam ne handicap ñor na la ak képp koo xam ne mbiri handicap amal na la njariñ nga taxaw voté liste bi nga xam ne nag moo ñu bàyyi xel dëgg-dëgg la bu baax a baax a baax également ñu am fi yeneen réaction su ko defee rek euh, ya a un autre monsieur tout près de nous euh, bàyyi ñu njëkkee ci yow. mustafa euh, Moustapha Faye laa tudd dëkk fii Noto Diobass dëkk bu ñuy wax Ngolaar. te jii monsieur Faye ban yëg-yëg nga am mais également la l'autre question moo nekk le pourquoi à votre avis Ousmane Sonko a choisi la ville de Thiès pour démarrer sa campagne électorale. Ah, waaw parce que bon ça fait plaisir ñu choisir sa localité commencé fa campagne bi en Thiès euh, c'est l'une des premières régions qui a basculé dans Pastef ah fii euh, bi que Pastef di gagné commune Thiès euh, tel na trop alors que bastion wu yeneen parti la woon parti socialiste PDS APR donc loolu Euh, defe naa loolu c'est pour sargal waa Thiès ci liggéey bi ñuy def. bu baax a baax mais également jëlaat euh, beneen euh, réaction monsieur ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi leen di fay. tey jii ban yëg-yëg nga am mais également lan nga jàpp ni personnellement moo motivé Ousmane Sonko président du parti Pastef à ce qu'il choisit la ville de Thiès pour y démarrer la première jour de campagne électorale. waaw xam nga cees pour commencer je me présente Adjuma Ka euh, doon aussi mandataire ci élection Pastef yëpp euh, waaye li may wax mooy Thiès li muy symboliser ci politique gu Sénégal dafa dafa rëy dafa yaatu donc xam Sénégal koo xam Thiès xam ni dafa mës a nekk dëkku politique moo donc Ousmane Sonko ne day ñëw tey pour euh, démarrer fi campagne am euh, loolu du du hasard quoi waaw du hasard donc euh, ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla def aussi euh, ñëw bi muy ñëw Thiès aussi di fi déparé campagne yàlla may ko ci ndam ah, ba mu am euh, li mu soxla ci ay député à l'Assemblée nationale. ñu jaajëfal la bu baax a baax mais également ñu jël beneen réaction tonton ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu daal di lay laaj ban yëg-yëg nga am ginnaaw bi Ousmane Sonko tànn Thiès ngir doore fi campagne électorale. waaw je me nomme Ibrahima Diagne mooy le coordonnateur départemental de l'APJS alliance des patriotes pour la justice et la solidarité ñun allié nañ ci liste Pastef bi alors réaction bi mooy mooy kontaan rek jàpp nañ ne moom Sonko c'est l'homme qu'il faut au Sénégal pour vraiment changement bi nga xam ne moom lañ la mooy changement profond ñu war ko mën a am avec le duo Sonko Diomaye je pense que Sénégal dina fi jaar décolé une fois encore waaw jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax euh, également euh, comme ni ñu leen ko waxee woon rek réaction yi daal dinay bëri les patriotes euh, sont là ngir rek teewee li nga xam ne moo nekk le premier jour de la campagne électorale monsieur ñu daal di lay bàyyi nga nuyoo ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di nuyu di leen am mbégte di leen sant di leen gërëm première question mooy lan moo tax nga tànn Ousmane Sonko. non lan moo tax ma am ci Ousmane Sonko mooy que projet bi mu teg pour le Sénégal mu am jariñu Sénégal am njëriñu jeunes yi am njëriñu mag ñi ñëpp partout c'est le projet moo tax ma tànn Ousmane Sonko parce que man PDS laa nekkoon mais dama bàyyi PDS démissionné ñëw ànd ak kii ànd ak Ousmane Sonko créé mouvement MTH Thiès horizon deux mille cinquante mais également lan ngay xaar ci Ousmane Sonko avec ce nouveau gouvernement. non li ñuy xaar si Ousmane Sonko rek mooy comme ñu appliquer le projet parce que bu lu projet bi rek yaa ngi dégg nit ñi ñëpp da leen seen bopp parce que lool moo ci am solo ñu ngi xaar. yaa ngi li li ñu commencé def daal moom macha allah li ñu commencé def macha allah gis nañ si nit ñi gis nañ ko teg nañ si seen bët xam nañ ni réew maa ngi tegu ci yoon ñëpp kontaan waaw. ko bu baax a baax mais également euh, il a d'autres réactions yoo xam ne euh, gars yaa ngi fi euh, comme ni ngeen ko gisee rek donc Tata ñu ngi lay nuyu waa internet site internet bu Allô Sénégal ñoo lay nuyu tey ci ñu bëggoon a xam ban yëg-yëg nga am en tant que dame ci teewaayu Ousmane Sonko ci premier jour campagne électorale fii ci Thiès. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Ousmane Sonko dañu kontaan si parcours am parce que c'est un homme intègre. ñu ngi jëmale réew mi ci kanam donc euh, lañ fi nekkoon yëpp te ñu koy combattre mu ci yoon bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla jàppale ko may ko luñ kawe njortam incha allah et législative yi ñu jëm ñu am majorité écrasante à l'Assemblée nationale merci je vous remercie. finalement tey jii gis nañ jigéen ñi dañoo gën a am dévouement ci li nga xam ne moo nekk bi tey jii est-ce que xam na lu xam en tant que femme tey lan moo leen motiver à ce que ngeen di gunge ki xam ne moo le président Ousmane Sonko. on a vu que dans la société traditionnelle les femmes n'avaient pas sa place dans la la vie politique mais que depuis un certain temps euh, les choses ont changé donc femmes yi dañuy réclamer seen place. On a vu des femmes députées, des femmes euh, ministres qui sont dans cette lancée-là. Ousmane Sonko dafa bëgg réew mi naat donc moom góor ak jigéen la yemale que pour góor taxaw jigéen mën na fa taxaw pour l'épanouissement et le développement du pays. On parle aussi de la participation et de l'autonomisation des femmes donc euh, avec les financements les projets femmes yi mën nañoo développer participer ci développement réew mi. ñu lay bu baax a baax maman Alaaji Fallou moo daal di nekk ci li nga xam ne moo nekk Allô Sénégal Allô Sénégal donc euh, sëñ Fallou moo nekk ci ginnaaw caméra bi ngir rek bokk ak man li nga xam ne moo nekk liggéey bi ngir daal di jël li nga xam ne moo nekk euh, réaction euh, des patriotes ngir rek waajal li nga xam ne moo jëm ci wàllum campagne électorale bi ngeen ko gisee rek gaa yaa noonu daal toog. def euh, seen mise en place euh, ngir rek euh, teewee li nga xam ne moo nekk Ousmane Sonko li mu war a wax ak gestuwa yi buuxante bi bëri lool mbir mi xat na lool patriote yi ku ne xam xam ne dañoo dañoo xër ci ki xam ne moo nekk le président Ousmane Sonko comme vous pouvez le voir gaa yaa ngi dugg gaa yaa ngi jël place mbir maa ngi noonu. en tout cas ça promet ça promet comme ni ngeen ko gisee rek xam naa ne yàggatul dara moom le président Ousmane Sonko dina daal di teew ci kaw podium bii ngeen di gis ngir rek jàkkaarloo ak askanu Thiès. ni ngeen ko déggee nag Thiès waaye daan nañuy xam ne nekk ne dëkk bi dëkk Ousmane Sonko la kon c'est tout à fait normal a ce que mun ñëw daal di dooree li nga xam ne moo nekk euh, campagne électoral bi fii ci Thiès kay dëkk ñaari gaar na yéen koy gis noonu mbir mi xat na lool mbir mi xat na lool.